alhamdulilahi alladi adhara min sirri xaqaiqihi dhatiyati alkamaliyati nuqush alawalimi wal a'lam wa axraja min nuuni aljamci aldhati anwaa alxurufi walkalimati walkalaam anzala min maqaami aljamci waltanzihi qur'anan arabiyan min xayri di ciwajin wa jacalahu mucjizatan baaqiyatan ala wajhi kulli zaman saaticat albarahin wasalaatu wasalaam ala man huwa fatixu baabil xadrati fi lilmi wal ayni wal yaqin sayidina muhammadin alladi kaana nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tiin wa ala alihi wa asxaabihi almutaxallixiina bi xuluqi alquran wa man tabiahum bi ixsaanin ila axiri zaman mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew yéen ñëpp maa ngi leen boole nuyoo di ñu yàlla boole mu gën a tedd ci nuyoo yi gën cee sell gën cee sakkan yàlla tënk ko ci juróomi ba jël aw turam yeewee ko ko waaye nag ku lóoralee ko barkeem bu yaatu ba ak yërmandeem yu law jë muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo bi nag tabaarakallaahu gannaaw bi ma ko ñëppalee ñëpp danaa ñennal ñenn ci biir ñëpp ñi def li ulamaawu usul di tuddee atful xaas alal am biir ñenn ñooñu maa ngi ci jiital doomi soxna yi kilifa yu màgg yi nga xam ne ñoo ŋànk diina ji ŋànk timit turuq yi nekk ay kilifa yu baax yoo xam ne ñooñu wan lan moo doon yoonu saxaabatul kiraam yi comme nañu saxaaba yi wanee wanee leen fan moo doon yoonu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ngàntalu ci doomi soxna yi ci liggéey bii ñu fas yéenee ànd ak yéen te mu nekk lu jafe muy tafsirul quran te ku ne xam na jumtukaay yi muy ànd ak la ci war lekk kon bu rafetee mbaa mu baax rek yàllaa ci dugal ndimbalam ndax dañuy wax ne alquran jàpp bësi la foo ko wàccee rek wëcci fa dara su boobaa kon liggéey boobu la bëgg a ñi njëkk a ngàntalu ci borom xam-xam yi lépp luñ ci gis ci njuumte ñu jéggal ñu ko te defaral ko te xam ne lu baax rek lañ ci jublu in uridu ila al islaaha mastataatu waaye wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu lay unib téere la boo xam ne ku ko teddal yàlla saxal teraanga ci sa jëmm saxal ko ci say doom saxal ko ci say sët ba tax na koo mës a gis mu am tedd nga àdduna ak àllaaxira rek alquran moo ko ko jox comme xas teral nag kenn mënatul laa xëñee teraanga waaye ku wan gannaaw alquran ba xas torox kenn mënatul laa teddalati kon téere boobu lañ fas yéene ànd ak yéen muy téere boo xam ne nag jàppal ne ci yàlla la bàyyeekoo. melow yàlla la wu sax dàkk ci jëmmam ja ndax waxam la wax wax yàlla la wu sax dàkk ci jëmmam ja muy melow melow woowa nag mën nga wax ne sifatul mawsuufi lil qidami la ni ko ahmadul busiri yu waxee yàlla nag jël alquran jooja mu nekkoon lu ñu toxal andi ko ci asamaan si tiim ñu ci néeg bu ñuy tuddee baytul izza waaye njëkk loola nag lawxul mahfuus lañ ko njëkk andi ñu bind ko fa toxalee ko ci bay maanaam bay lawxul maxbuus doon ko indi ci asamaan si tiim ñu mu tolloog weeru koor guddee laylatul qadri léegi nag ñu jëlee ko ci baytul izza indil ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñeent fukki atam ci dundam di ko wàccee pari xaaj pari ay saar par euh, maanaam ay ay ay euh, maanaam ay xissa ci kem laajal nit ñi ak ci kem tamit histoire yi ak ci kem tamit ni ko yàlla organisé ci diirab ñaar fukki at ak ñett la yonent bi def ci daara moom tamit ci la jàmmaarloo alxuraan ji ba mën ñu ko jox ñu koy tënkee yéeg yi kon nekk na loo xam ne lu yàgg yàgg la moom tamit bi nga xamee ne nii alxuraan ji ñëw na ci moom nekk wax bu diis yoo xam ne yàlla rek moo ko mën a oyofal fekk ko booba ma nga ca xaarul xiraa jibril fekk ko fa wàccee ci moom alxuraan saara bi ci njëkk a wàccee di suuratul alaq kon noonu la alquran déparé bu njëkk bi ci yàlla la bàyyeekoo te bàyyeekoo wut ci jàllal bi ku ñëw ci lawxul mahmud bàyyeekoo fa ñëw ci baytul izza door fa bàyyeekoo ñëw ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kam kem xew-xew yi ak ci kem ni ko yàlla programmé ci diirëb ñaar fukki at ak ñett kon loolu teel nga cee déggee ne wute nag yeneen ak ñeent alquran moo ñëw Euh, ñeenteel leen waaye boo ci génnee alxuraan téeméer ñett lay doon nga xam ne boo delloo ci mbindam xaadimu rasul boo koy jàng ci téere mu nga tuddee tasawadu zixaar dafa ne téere yi yàlla mos a wàccee mu bàyyi ko ci asamaan ñëw ci jaame yàlla yi bu ñu la ko ne xaddul la xaddul nag xaaf téeméer la maanaam del kàtt muy téeméer ak ñeent bu la neexee tamit nga tënk ko ci ñetti xaraf muy samadu turu yàlla mooy tekki ku ñëpp jublu samadu tamit mooy ci maan yi wàcc saab 60 la mim 40 la del 4 la muy 104 waaye téere yooyu yëpp téeméeri yaak ñett yëpp benn bis la wàcc benn jamono benn heure looloo waraloon seen nit ñi mokk luñ ko woon alxuraan rek la ci yàlla organiser taxawee ko taxawaay boo xam ne moo wàcc ci diirab ñaar fukki at ak ñett ànd ak loolu lépp tamit alxuraan moo ëppoon téere yooya yàlla jàppandal ko ba aw nitam tamit mokkal ko di xeetu Seydina Muhammad tawreet da muy rëy rëy ñu ko mo passé wul ñetti nit linjiil noonu zaboor waxi nopp waaye alxuraan tey xale lu mu tuuti tuuti ñaareel fukki at fukki at ak ñaar juróom-ñeenti at nga dajeeg moom mu mën laa tere alxuraan kon loolu day dëggal wala qad yassarna alqurana li dikri fa hal min mudakkir mu mel ni nag gaa yi nag ba ñu wàccee alxuraan benn yoon ñu laaj yonent bi ne ko lawlaa nuzila hadha alquran jumlatan wahida lu teree yàlla wàccee alquran benn yoon ci benn heure ci benn xew-xew ko defee woon ca tawreet ak linjiil ak zaboor yàlla nag ne ko ñi ko séq dama leen a xam yow ñi ko séq seen xel dafa ñor ñu fasaa lañ ñu mën a wax lañ te su ma wàccee woon alxuraan benn yoon mën nañ laa laaj loo xam ne doo ko mën a tontu nga nekk di ko jéem waaye damay bàyyi luñ la laaj rek maanaam question buñ la laaj rek maa lay indil maanaam tontu la nga mën koo tontu moo tax ma ne ko kasaalika li nu sabita bi fu aadaka dama ko def ngir bëgg mu sax ci sa xel waaye damaa bëgg tamit wala yatuunaka bi masalin ila ji'naaka bil xaqi wa ahsana tafsira damaa bëgg luñ la indil laaj la ko rek ma man maa maa indil tontu nga mën leen a tontu ndax yàlla dafa baaxoo yonantu bu muy yónni day seet la gën a tumuraanke ca jamono jooja mu jël ko def jox ko ko muy ngànnaayam jox ko ko muy force nga xam ne ku ko ci song rek lu daan la gis nga bi muy yónni yonantu yàlla Moussa jamono jooja li xewoon mooy njabar nit ñi mën a njabar lool ba mën a sànni yet bët yooyu gis yëpp jàpp ne yet bi moom jaan la ni ñu koy xewee mën a ti taxaw tamit di nit ki taxaw téye safara ne ma ngi koy lekk ci lu ñu ñuy gis waaye safara xam ko lekk de nga gis tamit ku mën a taxaw safara buy tàkk mun a yéeg la ca kawam yàlla nag ñëw may xam-xam yonentu yàlla Muusa boo xam ne dafay lottal xam-xamu njabarkat yépp te loola dugul njabar loolaay lan mooy yat la ko jox ne ko boo ko sànnee rek mu soppeeku jaan la ñu sànni woon muy seeni njabar yépp mu wann ko jàllale du ko ba dàqe leen ñoom njabarkat yi keroog noonu la def ba dàqewaale Firawna mu kabine boppam njëkk loola yàlla jayoon na ko ñeent fukki fan yu nekk benn yoon la dem toilette waaye keroot ba ko xeetu yonentu yàlla Moussa wa dàqee li des ki dundam bët bu set dana dem toilette ñeent fukki yoon waaw yaakaar naa ne 24 heures ku ci dem toilette maanaam ñeent ñeent fukki yoon yaakaar naa daanaka mën ngay wax ne ca maanaam toilette ba nga dëkk kon gis nga loola yàlla jox ko ci loola ndortal la lañ maanaam ba mu yónne yonentu yàlla eh, maanaam Isa booba xam-xamu médecine moo xewoon danga gis ku feebar ba jaaxal ay mbokkam du man dara waaye bu ñu ko yóbboo ci médecin yi rek bu ñu defee la ñu def rek mu saafarawu ca saasa Moussa nag yàlla jox ko Isa kon yàlla jox ko moo gisatu ci wàllu médecine boo xam ne nag médecin mosu cee yegg ndax ñoom lu ñu doon for for seen foraay yëggutoon ci fekk ku gumba ñi mën a raay bët ba mu xool ci yàlla Isa ñëw man lool fekk ku mu wàññeeku mu ñaanal ko cër ya ñëwaat mu mën a ñëw fekk koo xamee ne ni passé la lool dee na sax dundatul mu ñëw fëgg bàmmeel ba kooku jug jox loxo jox loxo nit ñi foofu nag médecin zukaaya waaye ba muy yónni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ju foor wax ju fasaa def ay discours def ay cheru yu jommal nit ñi moo xewoon wax joo xam ne fu ko fu ko nit waxee rek da ngay yëngu yàlla nag léegi ñëw wàccee ci moom téere boo xam ne lottal na ñu njëkk ña lottal ñu mujj ña walis ñi mën a indi lu toll ni benn aaya ci moom moo tax keroog ba ko yàlla wàccee ci moom téere bi ñu bëgg a gaa yi nekk fa naan yonent bi moo ko wax ndax moom waykat la moo ko njabar njabarkat la yàlla ne wax ngeen wax joo xam ne dafa leen a da leen a delloo tontu te yëgu leen ko su fekkee yonent bi moo wax alquran alquran kay mat na téeméeri maanaam mat na téeméeri saar ak fukk ak ñeent muy 114 ci ay saar ay xisibam juróom-benn fukk la kon kay yéen jéemal leen ma ba indil ma rek wenn saar ci al fukki saar ci alquran fukk la leen njëkk a dëkk te xam nga saar mooy lu am commencement am nu làmboo maanaa la ca gën a gàtt mooy inaate ataynaaka al kawsar nga xam ne ñetti aaya rek la la ca gën a gudd mooy suratul baqara yàlla leen ko nag faatu bi ashri suwarin mislihi muftarayaat mënuñu ko indi mu ne kon naa leen juróom-ñeent leen ma rek maanaam benn saar faatu bi suurati min mislihi waaye du yéen rek mais wad'u shuhadaakum min duunillaahi in kuntum saadiqiin mënuñu ko indi mu ne kon waxatuma saar indil leen ma usloo bu mel ni alquran ci wax lu fàddu ci wax bi fasaar ju am njariñ joo xam ne dana am ren am am am garab am dàtt maanaam am ay bànqaas am ay xob am meññeent mu mën a jariñoo ne leen kon nag fan yàttu bi xadiis yi misli mu mënuñ ko andi mu ne kon nag ñëw leen ngeen jébbalu xam ne qul in ijtamaat il insu wal jinnu ala an yaatu bi misli hada alquran laa yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin xiira gaa ne ñoom wax dëgg yàlla li li yàlla wax dëgg la waaye nag ñoom ñu jàpp pare rek rëy tax na nangu ñoo jébbalu mel ni Musaylamatul Kazzaab moo ci doon jéem a jéem ne ah comme yàlla dafa waxoon fukki saar man danaa jéem su ma defee benn baax na ba ñaar sax waaye jéem buy feeñal ak tële ñàkk a def te dese kumba sax moo ko gën mu taxaw ne moom day toppandoor wan naasiaati xarqan ci la nekk naan wasaariaati sarxan wal xaasidaati xasdan wa taaxinaati taxnan xam nga wax jooju ñàkk solo la mu ne man Musaylima maa ngi gëj ne mbay mii nit ñi bay bay la góob yi nit ñi góob seen tool yi góob la waaye tamit mbojj mi ñuy bojj seen dugub yi mbojj la wax bi amul njëriñ ba ulamaaw balaaxa ñu ngi ko ñaawal ne raqiqatun fii lafdiha wal maana qawluhu wa taxinaati taxna kon alquran mooy téere boo xam ne lottal ñu njëkk lottal ñu teew lottal ñu mujj walis ñu mën a indi lu mel ni moom te yàlla jagleel ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mu nekk nag miracle bi gën a yéeme ndax yeneen miracle yonantu yi li ñuy maanaam saxut passé na ba mu passé rek la passé bu ñu ko alxuraan waxutoon sax kenn du ko am yonentu yàlla Suleymaan ak xorondonga li xisa bay rëy rëy rëy bu ko alxuraan waxutoon kenn du ko xam gis nga ko tamit yonentu yàlla Muusaa ak yet wa bu ko alxuraan waxutoon xam yonentu yonentu yàlla Ibrahima safara wa bu ko alxuraan waxutoon kenn du ko xam yonentu yàlla Yunus ak géej bu ko alxuraan waxutoon kenn du ko xam waaye kon ñoom ñëpp am nañu ay miracle waaye seen miracle yi saxut dafa ñëw rek passé dem na jeex na yonentu bi nag la yàlla may miracle boo xam ne soo dégloo dégg ko boo xoolee gis ko boo làmbee tamit daj ko muy alquran mu nekk mujizatun xaalidatun dafay jóg mukk fekk maanaam yàllaa ngi fi nga xam ne day continuer bañ dugg aljaan tamit alquran nekk fa ñu ko fay jàng foofa di ko bànneex kon loolu moom rek moom la ko yàlla jagle alquran jii nag danaa la wax ni mu doon wàccee ci yonentu bi sallallahu alayhi am na ay façon bu daan wàcc ci moom am na ci façon boo xam ne day mel ni ay ñaari weñu ñuy tëgg mu ne nag boobu moo ci gën a metti moo war waraloon boobu bu ko fekkoon mu maanaam bu ko fekkoon ci gëléem da gis gëléem nga day lox di lox di lox ba ne rëpp ci suuf si ngir maanaam diisaayu wax ja moo tax dafay dëggal yàlla ne inna sa nulqi alayka qawlan thaqila waaye tamit am na ci yoo xam ne day mel ni Euh, day dégg kàddu ga kàddu jibril gi mu ñëw indil ko baar ya waaye du gis jëmm jë am ci boo xam ne day jàkkaarloog jëmm jë jëmmi jibril ji carrément yonentu gis na ko ñaari yoon am ci yoo xam ne nag jibril day sol mbubam nit melokaanoo nit rawatina ku njant de di xeetul bii benn buur la la yonentu bi lay jibril ñëw sol mbubam carrément ñëw taxaw di wax ak yonentu bi ba aaya yee moo ko wax moo tax nag euh, am na ci yoo xam ne da koy fekk mu mu mu toog nii rek waaye buy wàcc ndeysaan bu doon jamonoy sedd da nga gis day ñàkk tooy xet même bu ko fekkoon muy sangu sax diisaayu wax ja day waral maanaam mu day mujj ñàkk ba nga xam ne da nga da yéemu ci moom xam ne kii am na luy wàcc ci moom dootul mën a waxate kenn ku dul yàlla rek lay lay wàcc rek lay mën a jël waaye yàlla ti may na ko xel moo xam ne lu mu taataan dootul sennati sa nuquri uka falaatan sax yonent bi du jàng dara di ko fàtte lu ko yàlla jàngal bu jaar ci yu Jibril lépp la mokkal fàttewu ci dara wakkan bu baax tamit la ko yàlla jox mën a mu mën a taataan loola kon façon bii la daan wax yi daan ñëwee ci yonantu bi ci état maanaam façon état bi tamit la daan ñëwee ba mu ñëw ci moom ci alquran ci téeméeri saar ak fukk ak ñeent ak juróom-benn fukki hizib bi saar yooyu nag am na nu daan wàccee ci toftale bu ñu la laajee ci alquran ban saar moo njëkk a wàcc mooy suratul alaq moo njëkk a ci alquran mooy iqra bismi rabbika moo njëkk a wàcc tombe yonantu bi am na ñeent fukki at mu dëppoo bisab altine mu fekk yonent bi ca daarul xiraa moo tax keroog ba saar wi wàccee nañ ko jàngal jàngal mu ne ko man naka laa jàngee te doon luxuma ko naka laa jàngee te aliwa ji ma war a jàngee yettaguñ ko léegi nag ci la mu jël lox daw dem seeti soxnaam Sayyidatuna Xadija ba mu demee rek mu jël mbàjj yee sàng ko ko yonent bi lox rek ne ko ba tey daal li ma doon yëg maa ngi koy yëg Sayyidatuna Xadija ku yeew la ci la ne ah man de déggoon naa ki jàngkat yu njëkk yi ñu ne maanaam malaaka du gis awra te jigéen léppam awra la bàyyi ma dindi sama musóor bi comme maa ngi ci néeg bi kenn nekkul fii su ma ko dindee rek bu nekkee malaaka dinaa xam ba ba ba sayyidatuna Xadija rek yonent bi dem na gisatuma ko mu delluwaat musóor gi rek mu ne ko ñëw na ci la door a xam ne nekk kon lii dikkal sama jëkkër gi nekkul jinne nekkul saytaane mais malaaka la ci la daw tamit yemut ci naka jekk ku mos a jaaxle rek seeti sëriñ maam man yi dem seeti warqatu ibnu nawfal ne ko sama jëkkër dafa bàyyee ko ca tàngoor wa ànd ak daladi dalal naa ba sonn léeg-léeg mu dal léeg-léeg mu ñàkk a dal dama lay laaj nag maanaam moom lan moo ko jàpp mu ñëw ànd ak moom ba mu ñëwee mu laaj ko lu muy dégg ak lu muy gis ak mu am lu mu ko ca nettali waraqatu ibn nawfal ne ko sa jëkkër ji li ko dikkal mooy li daan dikkal yonentu yàlla Moussa ci kii ci la yonentu yi jeexee gannaaw ba àdduna tukki benn yonentu dootu amati ak yellam ci woon jamono ji ñu koy génnee màkka mu fekk ma suma digg doole kon danaa xeex dimbale ko ci ñu koy ñu koy génnee yonent bi jooy ne ko danañ ma génnee mu ne ko li nga indil sa xeet yi kenn mosu leen ko indi te génnewul la kon gis nga ko ba mu tàngee ca biti jabar bi dafa fekk jabaram di félicité li ñu ci déggee kon góor ñi bu ñu tàngee ci biti war nañoo mën a am soxna yu baax leen mën a dalal nga xam ne la ñu tàngee woon bu ñu ñëwee ci moom dañuy mujj fàtte ko waaye nag foo toll sa jëkkër jëndal ma frigidaire yaa war a fexe ba nekk frigidaire sa jëkkër xam ne bu tàngee nga mën koo waaye bu fekkee tamit bu tàngee nga ñëw gën koo tàngal boo ko joxee ndox mu sedd mi day mujj tàngaat fu toll tamit jëlal ma télé nangam ak nangam fexeel ba nekk sa télé jëkkër ba bu la gisee rek kontaan Sayyidatuna Xadiija nag dafa fekkoon ba nekk télé Sayyidina Muhammad nekk di fii si der moo tax nag yonent bi mos ta jàmba dara ci biti kon lu njëkk a wàcc ci tënk mooy suratul alaq bañ ba bàyyi ko nun wal qalami moo ca tegu ba ca tegu muzammil mudassir door a ñëw suratul lahab bi sa sam su kuwirat ñëw sabbi isma rabbikal a'la wal layli wal fajri wa duha alam nasra wal asri wal aadiyaati suratul kawsar door a ñëw takaasur door a ñëw suratul maawun ñëw suratul kaafiruna suratul fii ba pare nag ba yiy ñëwee naj mi door a ñëw wa ixlaas moo jiitu naj mi door a ñëw abasa suratul qadri wa shamsi wa duhaaha suratul buruj wa tiini maanaam li ilaa fi door a ñëw xuraysin ñëw léegi dem ba ci alqaaria ñëw maanaam qiyaama ñëw humasa ñëw mursalaat xaaf balat taariq iqatrabati saa saat ak laxaraaf suratul jinni door a ñëw yaasin ñëw furqaan ñëw fatiri maryama taaha waaqia shuara namli qisas door a ñëw bani israil yunus hud door a ñëw yusufa xijri door a ñëw lanaam door a ñëw saafaat luqmaan sabai zumar door a ñëw doobu xaamim sageda maanaam mumin door a ñëw xaamim sageda ñëw xaamim ayn sin qaaf suxraf ñëw duxaan jaasiya laxqaaf zaariya door a ñëw rashiya ñëw këf fi ñëw nax li ñëw noox ñëw ibrahima ñëw anbiya yi ñëw muminuun a ñëw tanziru sageda door a ñëw maanaam euh, tuur yi ñëw mulki ñëw al alxaqatu ñëw saana saailun door a ñëw léegi nag nii la doon alquran di toftale di wàcc amma yatasaaluna ñëw naasiati isamaun fatra isamaun shaqa suratu ruum door a ñëw ankabut door ñëw waylu lil mutaffina door a ñëw lii boo ko calculé dana la jox juróom-ñetti fukki saar yoo xam ne nii a maanaam ak ñett yoo xam ne ñu ngi wàcc màkka ci toftale bii nag la la la maanaam wàcce ba léegi sax am na ñoo xam ne seen kaamil ci toftale bi lañ ko nosee nga xam ne ñoom bu ñuy firi suratul xalaq la ñuy njëkkee teg ci maanaam xalam teg ci muzammil toftalee ko nii nii la alquran wàcce yii saar na ma limal la mooy saar yi nga xam ne moo wàcc màkka diira fukki at ñett ya fa naa muhammad def kon neen fukki at ñett yam def màkka daal lii la la la ko fa jibril jàngal mu bàyyee ko ci yàlla mu fexe tamit ba jàngal ko xeetu bi kon yii mooy saar yi nga xam ne wàcc nañ màkka limal naa la ko léegi nag danaa la limal tamit saar yi nga xam ne ñoo wàcc madinatul munawwara boo ko calculé dana nekk fanweeri saar ak benn baqara moo njëkk a wàcc fële ca madina lanfaal door a ñëw ala imran laxsaab ñëw na ñëw nisaa yi ñëw ida susilatil ardu ñëw xadid ñëw muhammad ñëw raadi rahman hal ata alal insaan door a ñëw talaaq lam yakuni xasri léegi nag alaq door a ñëw falaq kon door a ñëw ak naasi ida jaa nasrullaay ñëw fatxi ñëw nuur door a ñëw xajji munaafiquuna mujaadala xujuraat tahrim door a ñëw safi jumaa door a ak taxaabun ak fatxi ak tawba ak maida yii fanweeri saar la ak benn fekki saar yi ma limaloon maanaam ca màkka boo ko boolee lépp mu jox la téeméeri saar ak fukk ak yi moom moo wàcc ci alxuraan muy téeméeri saar ak fukk ak ñeent di 114 saar kon loolu tolloog samadu tolloog tamit bi maanaam xaddu léegi nag saar yi su ma ragalutoon guddal dinaa la wax ñaata saar ñoo ci am naasix mooy am na ci yoo xam dañoo folli aaya nekk duñ ko appliqué ti waaye ñu ngi koy jàng rek ci jaamu yàlla waaye atte ba nekkatu fa am ci yoo xam ne dañuy folli atte ba ak aaya yépp am ci na saar yoo xam ne am na naasix am mansuux am yoo xam ne naasix rek la am waaye amul mansuux am yoo xam ne mansuux rek la waaye amul naasix am ci yoo xam ne amul naasix amul mansuux waaye ba ma toppee insha allahu rabbi bu ma yeggee ci maanaam sax min aayatin aw nunsiha danaa yi nga xam ne saa yi nga ci ak mansuux ak yi ko amul insha allahu rabbi kon topp ma bañ yegg léegi nag euh, alquran yi ba mu ñëwee nii yonent bi moo doon benn maître boo xam ne moo doon jàngal ñépp fexe sonn lool ba dugal alquran ci dënni góor yàlla yi waaye li muy sonn sonn ci daara ak mu cay yàgg-yàgg ak li muy mën a mën a mën a jàngale yàlla dogal na fukki kaan ak ñeent rek la yonent bi formé ñu mokkal alquran ci dundam ñi ci des nii dañuy mokkal genn wàll ñuy mokkal lee waaye mokkal alquran lépp taxaw man koo tari minal baqara ila naas fukki nit ak ñeent moo moom la ko yàlla defaloon ci ci dundam fukki nit ak ñeent yooya boo demee ci mbiram maam xalifa ci mi aatu safaan lim na leen nee na jamaa al quran al muazama zaydun wa muazun ubayun niamal walaahu wa abu ayuba tamimun wa usman nun la fi ashraqat bihi lbathaau summa minhum ubadatun wa ibnu mas'udin wa man tunma lahu dardaau wa aliyun qaysun wa salimun aydan wa huwa mawla saidin fa hum qurraau fukk ak ñeent ñii ma limal la ñoo mokkal alquran ci jamono sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukk ak ñeent ñooñu sax Aboubacar li muy baax baax bokkut ci Aboubacar mokkaltoon alquran ci jamono yonent bi donte mooy premier xalifa Omar ibnu Xataab li muy baax baax ak li muy ñàkk-ñàkk caaxaan bokkut ci mokkaltoon alquran ci jamono sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ousmane moom mokkaloon na Ali ibnu Abi Talib ñaari riwaaye moo ci am ñi dañ ne mokkaloon na ñeen ñi ne déedéet bi yonent bi génn àdduna fukki saar rek la mokkal ndax xare ñoo taxoon gannaaw si la tëju juróom-benn weer ci ba mu génnee rek la door a mën a taalif kaamilat kon gis nga ci la borom xam-xam yi jëlee ne mokkal alquran du farata bu doon farata kenn du ci jiitu Aboubacar ak Omar ak ñu mel ni ñoom waaye nag mokkal ci moom farata la fexe ba mokkal ci. mokkal ci mooy loo gàtt gàtt aliwa fexe ba mën a mokkal fatiha saar wala fatiha ay saar waaye nag la ñàkk gi ñàkk nekk farata tax terewul ku la ëppale lu mokkal ci alquran boole ko gëm yàlla di ko pratiquer bu yomal xiyaamee moo lay sut étage ak immeuble li ko waral mooy darajaay alquran darajaay maanaam darajaay aljana yi mooy état bi aljana yi état si moo tolloo maanaam xarafi alquran yi moo waral benn xaraf boo mokkal ci alquran di ko jëfee rek am nga benn daraja ci aljana moo tax yonent bi daan wax ne iqra warqa jàngal ndax nga yéeg noo gën a jàngee ci alquran su boobaa maanaam sa daraja ci ci ci ci aljana maanaam gën di gën a kawe gën di maanaam gën a sori kon darajaay darajaay darajaay kii darajaay aljana yi moo tolloog maanaam xarafi alquran yi ku lu ci ëppale lu mokkal rek bu yow yowmal qiyaamee kooka dafa bokk ci ñay tiim waaye du bokk ci ña ñuy tiim alquran moomu nag boo doon calculer ay xarafam xaraf yi dana la jox million ak ñaar fukki junni ak juróom ci ay xaraf kon nag yow da maanaam ah xaraf boo ci mokkal am nga daraja kon boo lëggee dana am dëkkuwaay ci aljana yow mokkal alquran di ko jëfee lu mat million ci ay dëkkuwaay ak ñaar fukki junne ak juróom yooyu dëkkuwaay la yaakaar naa ne doy na dëkkuwaay kon loolu moo toll maanaam kii alquran aayaat yi nekk ci alquran aay yi ñu bëree bëri dañuy wax ne lim bi ci gën a siiw mooy 6666 waaye boo ko seetee ci xafs bi wala nga seet ko tamit ci wars bi da fekk ëpp na loolu bu bëree bëri waaye lim la woon bu fi yàgg rek muy laxnul awaam bu ñëpp miin waaye alquran lim am ci ay aaya ëpp na loolu muy 6666 moo gën a siiw waaye boo doon calculer xisib yi alquran am 60 lay doon xaaj kaw bi am 30 xaaj suuf bi tamit am 30 boo doon calculer bi maanaam suwar yi muy saar yi nga xam ne moo nekk ci alquran da lay jox 114 comme ni ma la ko waxee waaw boo doon calculer maanaam baat yi baati alquran yi da jox juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaari junne ak bi maanaam ñeent ñeent fukk juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaari junne. ak ñeent fukki baat moo nekk ci alquran alquran moomu nag boo doon seet bi maanaam baat bi nekk ci digg alquran boo ko doon calculer pari ay xaraf pari ay baat yaa ngay yegg ci suratul kahfi fi yàlla di waxee ne laqad jita shay'an nukuran baatab nukuran moo nekk ci digg alquran su boobaa nag kaaf mooy nekk ci xaaj bu njëkk bi raa gi nekk ci xaaju ñaareel bi waaye boo ko doon ci par ay suwar ay saar saar yi nekk ci digg alquran mooy xadiid ak mujaadala bi nekk ci xaaj bu njëkk bi bi nekk ci xaaj bu ñaareel bi alxuraan moomu tamit ci juróom ci ñaar fukki lettre ak juróom-ñett rek ci la composé wu mooy mooy mooy xuruuf abajada rek muy alif baa ba ca yaa waaye xa maanaam xaraf bu ci nekk su ma ragalutoon guddal danaa la wax bu ne ñaata yoon la ñëw ci alxuraan boo doon seet alif moom kenn rek baatu alif lim ñëw maanaam moom kenn ci alxuraan moom maanaam moom moom moom baatam alif li mu ñëw ci alxuraan mat na ñeent fukki junne ak juróom-ñett dégg nga ak ñeenti téeméer moom baatam alif rek lim ñëw ci alquran nga jël maanaam ci léegi xaraf bi ci tegu muy baa moom li mu ñëw ci alquran man na onze mille quatre cent vingt ci la boo doon calculer baat yi nekk ci alquran ni baa yëpp loolu la lay jox. bu doon jël bi maanaam saa yi nga xam ne moo nekk ci alquran junni rek la ak ñeenti téeméer bu doon seet bi maanaam. Euh, maanaam taa yi nekk ci alxuraan mooy junne ak ñeenti téeméer boo doon saa yi da jox fukki junne ak am ñeent ak juróom-ñett fukk boo doon jël bi maanaam jiim yi nekk ci alxuraan 3322 la lay jox kon su ma ragalutoon guddal danaa la wax li ma la commencé alif ba ta sa jiim ba ca yaa waaye boo delloo ci téere bu ñu tuddee maanaam majmuul ulum wa matlaul nujum imaamu nasafi liggéey ko dana la wax xarafu ne ñaata yoon la ñëw ci alxuraan bu la am téere boobu jafee mën nga dellu ci benn téere boo xam ne suñu mag ñi ci réew mi kenn moo ko ci bind di borom xam-xam bu mag ñu ko tuddee alxaaji Amadou Dem bi dëkkoon Sokone nga xam ne mag ñi ci réew mi yépp moom kenn la ci yàlla jagleel moo ci firi alxuraan def ko téere mu nekk ñaar fukki xaaj yoo xam ne nii moom la def téere nga xam ne daanaka li ëpp lu yàgg ci dundam def na ko ci yàlla ñu ko yàlla fay kon xaraf yooyu boo ko doon calculer moo nekk ci alxuraan léegi nag kon wax naa la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee di jàngale diiram ñaar fukki xat maanaam ak ñett fukki kàng ak ñeent la amoon waaye yonent bi yàlla ñu ko yàlla fayal ko organisé la dafa amoon ay secrétaire yoo xam ne lépp lu mas a wàcc ci alxuraan seen liggéey daal mooy bind ko moo waral loo bind mu sax loo bëgg nga mën koo jëriñoo de ko bind xam nga tey alxuraan bi ko bind toon du si ci moo tax da yaaram yi dañuy wax ni maa kutiba xarra wa maa xutiba farra mu ne loo xam ne da nga koo wax sànni ko wax ji day naaw kenn du ko mën a jëriñoo ci waaye su fekkee da koo bind su boobaa day nekk lu ñuy man a jëriñoo moo waral yonent bi luñ jëriñu ci moom gannaaw yàlla bind moo ngi ci dimbale demee ni ay maanaam ay alquran ci demee ni xadisa moom dafa xiroon ci alquran ba ba mu fi nekkee dafa daan wax ne sama xadis bu ko kenn bind ñu ne ko lu tax mu ne damay bañ mu jaxasoo wax yàlla ji te bu yàggee da ngeen xam lu ma wax du ngeen xam lu yàlla wax te loolu moo sànq yeneen xeet yi jiitu woon dañu dem jaxase seen waxi borom ak seen waxi yonantu danañ wax ne yàlla wax fekk seen yonantoo wax léeg-léeg ñu ne yonantu bi wax na prophète bi te fekk yàlla moo wax moom nag ba mu génnee àdduna ci la ñu ba saaba yi sax dem nañ ba génn àdduna Aboubacar Omar ak Ousmane ba ki jamono taabiin yi ne ci lañ commencé dagale xadiis yonantu bi ibnu maslamata mooy ki ci njëkk a taxaw taalif ci fànn googa ci la maali maali door a ñëw indi ci indi mu waxta maanaam bu buxaari yi ñëw mu muslim door a ñëw ñu kon ñoom ñii ñoo ci njëkk a def ku ñu tuddee nag ibnu hasmin mooy ki njëkk a taxaw ci dajale maanaam xadiisu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonantu bi xitteem lépp mooy nañu bind alquran te booba këyit yi amul fañ lañ ko doon bind ci ay xànc di ko bind ci ay xob lii ñu koy bind ci ay der lii da ngay jël benn garab rek xas ci ba am loo mën a kii rek bind ko ci mu nekk nag lu ñu dajale noonu waaye yonantu bi li fii nekk lépp ñi bind alquran sallallahu alayhi wa sallam mosta nekk kaamil ñu mën a dajale benn place nga mën a wax ne maa ngi jël téere ba dem toog fële baat ya la yoo xam ne bind nañ lépp waaye nag dafa jaxasoo toftaloo toftaleewut nii ñu toftalee woon ko nuñ ko tamit boole woon lii ma nga ca kii kii yore la ne kii yore la ne mu nekk lu tasaaroo waaye nag dara sànku ci ndax yàlla moo garante ne alquran bu sànku nu moo waral moo ko wattoon ba mu bàyyeekoo ci moom te bàyyeekoo ci moom mu ko wattoote ko mu bàyyeekoo ci moom ñëw ci lawhul mahfuz mu bàyyi ko fa ñëw ci baytul izza ñu wattooti ko mu bàyyi ko fa ñëw ci euh, jibril mu wattu ko mu bàyyi ko fa ñëw ci dënn sayyidina muhammad mu wattu ko mu bàyyi ko ci mu dugal ko ci ay dënn ay góor ci ay saxaabaam mu wattu ko waaye mu wattu ko tamit ci mbind moo tax yàlla ne inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun tey nag yàlla def na ko tey wattu ko day gën di day gën di dëggu rek tey ñu ci dënn góor ñu bëri waaye tamit dem na tey bañ wattu ko ci ay kaamil yoo xam mën nga yëkkati jàng mu tuuti lool dem na tey bañ waxtu ko mu nekk ci internet bi dem na tey ba nga xam ne sa portable bi gën a tuuti mën nga ca dugal kàndu alquran bi mën a dox ak moom te maanaam doo ci yëg dara kon yàlla li mu noonu may waxtu wax ju dëggu la jamono bi nekk day gën a dëggu duwul luy toxalu mukk loolu la wuuteeg yeneen téere ya yooyu garanti wuñ woon ñooñu yàlla dafa wax ne ñoo koy wattul seen bopp bi mas tuhfizu min kitaabillahi la waxoon mooy li nga xam ne wattu nañ ko ñoom ca téere seen téere yàlla la muy tawreet ak linjil kon ñoom ñoo ko doon wattul seen bopp alquran nag yàlla dafa ne kenn doyul ma ci maa koy wattul sama bopp kon ñoom ñaar duñ benn a yére yëpp sànq nañ dugal nañ ci lu ca bokk génn nañ ci lu ca bokk lu leen arrangé dañuy def ko ca ndax nga dégg naan nangam testament am niveau testament nangam na wax yàlla amul niveau fam tolloon rek la moo tax benn waay bu kaccoor dafa mës a bind ma dem présenté ko rafetee décoré mu bind liñ ji jàngal duguti bi rafetal mbind ma maanaam présenté ko nasaraan yi ñooñu kontaan ca décoré ko mu bind alxuraan yokku ca wàññi ko présenté ko jullit ñi ñu àcc ne dañ koy rey parce que dafa wàññi téere bi yàlla bi yokku na ci lu ci bokk mu ne ah dama doon seet téere yi ban moo ci gën a jub ban moo ci gën a tegu ci dëgg waaye yéen jullit ñi yéen nekk ci dëgg bis ni ki tey ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kon alxuraan rek mooy dëgg ci suñuy dund ba loo bëgg a bañ mu sànkooti utal ñu bindal wala ngay moo waral moom amoon na ñaar fukki secrétaire ak juróom-ñett 28 ñoo xam ne dara du seen liggéey bind rek ñooña maam xalifa bind na ko mu nekk ca jiitu mooy ibnu saadi da ko daan bind zubayru yu ubayyu da daan bind aboubacar omar ousmane aliyu da daan bind saxru talxatu ibnu kaysin yazid ak zaydu ñooñu dañ daan bind ba tey maanaam muawiya ibnu xasnata ak omar ak xuwaytib ak ñaari xaalid ya ibnu walid ñoom ñëpp danaan dañ daan bind ca bindkat yi lañ bokkoon ma ba tey Hanzal ca bind yi rek ibnu yamaani ma xusayfatu ibnu yamaani mu ayqibu ak abdullahi da daan bind xusaynu da daan bind ak ub abaan ak amir ak hamsatu ñii la yonantu bi maanaam délégué woon ñoo xam ne dara duwul seen liggéey lu dul ne rafet nañ loxo gaaw nañ ci bind aay bu wàccee rek mu ne bind leen te ngeen dugal ko ci place sàngam ñun nañu nekkoon loo xam ne lu bëggal sànku ci alxuraan rek ñoo ñoo koy kon ñii ñoo doon secrétaire u Seydina Muhammad yi nga xam ne lépp lu yonantu bi soxla woon rek maanaam ñoo ko koy bindal kon bind am na solo lu jara jara baaxi xel la moo tax nag bi yonantu bi génnee àdduna dem na waaye alquran dagale wuñ ko li ma la wax rek lii mi ci ay xob lii mi ngi ci ay der lii ñu ngi ko bind ci ay kiiwu garab yu ñu jël léegi nag yonantu bi génn àdduna kaamil amut waaye nag dajee nag xam nañ ko nii ci ñi ko mokkal ca noona boole koog timit toftale gaal nañ ko war a mel noona waaye taxut nag mu nekk loo mën a yëkkati dem toog benn place jàng loolu amut. Aboubacar toog ci xilaafa bi yàlla dogal bi mu toogee la mu njëkk a yittewoo mooy Musaylamatul Kazzaab mi doon oti nubuwa xam nga moo doon moom laa wax sànq mu doon topp la alxuraan dafa bindoon yonantu bi leetar ne ko suuf si maa ngi yow ñoo ko séddoo ñoo ko moom genn wàll gi yëpp yaay seen yonantu geneen wàll gi man maay seen yonantu ba bind ne min Musaylima ila Muhammad rasulillah fa ila al arda nisfuha li wa nisfuha laka suuf si kat genn wàll gi yaay seen yonantu genn wàll gi maay seen yonantu yonantu bi bindu lu nekkam neel min muhammad rasulullah ila musaylimatul kazzab leetar bi mu ngi bàyyi ko ci muhammad jëm ci musaylima yokk ci ne ko kazzab mooy fenkat bi yonantu kenn du moom dëgg tëgg gi mu ko tëggal kazzab bi siratul mubalaxa dem na ba génn àdduna mën ta ci dëgg lu mu wax rek fen lay doon même yàlla tamit namu ak fenam tey bu taxawoon boroom xam-xam ne bu taxawoon ne lii mbaam la ba nga xool ñu ne mbaam rek yàlla mas ko ko soppi ko léegi mu nekk nag ñu xam ne fen la bu ne lii tamit maanaam golo la bañ yaakaar ne golo la rek buñ ko seetee fekk mu nekk xaj kon li ko yonent bi wasafalee maanaam kazaab moo tax dund na ba génn àdduna mënta mënta waxati dëgg yàlla ñàkkaloo ko barke arab yi ñu bëgg kawar lañ ku ku yonent bi mos a raay sa bopp boo ñàkkee kawar dangay am kawar mos a demee ku mu raay sa bopp rek nga ñàkk kawar arab yi ñu bëgg ndox mu neex lañ lu ndox naqari naqari bu ko yonent bi ñaanal li ca mu gën a neex ndoxu keneen bi waaye nag moom bu ndox neexee bu ca taflee mu mujj naqari kenn du ko mën a naanati ci la nekk ndeysaan ba mujj génn àdduna ku ñu tuddee wax si moo ko rey wax si mi rey xam sa mi bàyyi taxu yonantu bi moo mujj rey maanaam musa gi ba daana bàkk moom musa moom wax si mi ko man de bi may bon bi may baax maa rey ki gën a baax ci nit ñi waaye bi may bon bi may baax bi may bi may bon naa dafa bëgg wax ne bi may bon maa rey ki gën a baax ci nit ñi bi ma demee nag ba nga xamee ne fu mu ne nii baax naa maa rey ki gën a bon ci ñi luy loolu mooy bi mu tuuboo bu nekk ku bon wax si moo rey ki gën baax bi di sa waaye bi mu demee ba tuub nag moo rey ki gën a bon ci nit ñi muy musalimatul kazaab mi doon woote ne kon wax si yu moom moo ko léegi nag euh, boo gisee ma indi sa boobu maa ngi ci namm bi yonent bi génnee àdduna nag léegi ñi nga xam ne dañoo murtatoon te ñi ci gënoon a bëri ñi nga dëkk yamaama ànd ak musalimatul kazaab mi di woote nubuwa Aboubacar dafa ne la déclaré guerre pour xeex ak ñoom bi Aboubacar nag demee xeex ak ñoom yàlla dogal ñu bëree bëri lu mat juróom-benn fukki nit ñoo xam ne seen dënn yi alxuraan lañ dañoo mokkal li am na sax ñoo xam ne mokkal nañ lépp waaye daal juróom-benn fukki nit ñoo xam ne seen dënn boo ko xaree fekk ci alxuraan ci dana Omar ibn Xattaab oo Aboubacar ne ko nañ waxtaan ñu bokk tëju mu ne ko alxuraan mii bu nekkee ci dënni nit ñi te binduñu ko. bu ñu deeree rek bu nit ñi bu ñu dee ñun ñii rek suñu gars yi ñi fi nekk dee rek ñi ko mokkal dee rek alxuraan dana effacé kon ñu tax ñu mujj ñi dañu am problème léegi dama ñaan daal nañu formé benn commission ñu war a dajale alxuraan fexe ba def ko benn kaamil Omar ah, Aboubacar ne ko lu yonent bi defutoon man ñemewuma koo def loolu bi daa la kon ndeke wax nit ne ko nañ def nangam mu ne laa yonent bi defu ko woon ko def Aboubacar moo ko njëkk a wax mu ne ko nañ tegale kaamilam yàlla bu nekkee ci dënd nit ñi rek defuñ ko kaamil buñ deexee nit ñi am problème mu ne ko ñemewuma ko parce que yonent bi mosu koo def lu yonent bi mosul def man mii ñemewuma koo def yàlla dogal nag Omar nekk ca di ko di ko wax ak moom bàyyiwut ko ëllëg heure bu ne mu nekk di wax ba mu mujj Aboubacar ne yàlla mujj leeral sama xel comme ni mu leeralee xelu ah Omar ibn Khattab ma door a d'accord ak moom nag ne ko d'accord naan léegi nañu dégale kaamil ñi seet nag booba ña fa dàq jàng ca jooju jamono ñett lañu wax mooy maanaam Zayd ibnu Saabit Abdullahi ibnu Subayru Abdurahman ibnu Xaaris dem na ba ñeent muy Saïd ibnu ibnu Laas ñii nii ñooy ñi gënoon a mën alquran ci jooju jamono waaye ñett ñi nag ñoo gën a foor ndax yonent bi dafa daan wax ne bu leen bu ngeen bëggee liire dara ci téere yàlla bi dem leen ngeen laaju ko ñett ñii ñett ñam doon nag cité Ubay ibnu Kaab ci la bokkoon Zayd ibnu Saabit ci la bokkoon Abdullah ibn Subayr ci la bokkoon ñett ñi ñoo ñu gënoon a mën alxuraan jamono yonent bi ba yonent bi moo tudd seen tournée leen rëcc ci téereb yàlla bi dem leen ngeen laaj ko ñett ñi léegi xam ne ñeent ñii ma lim ñoo ko jiite mu ne leen nag léegi dem leen ngeen seet alxuraan yi ngeen commencé di ko dagale si yeen xamoon ngeen aaya bu ne fi yonent bi waxoon nañ ko fa bind aaya bu ne fañ ko war a bind yépp xam ngeen ko am nañ ko doon bindee kon bind leen lépp ñu commencé nag di dagale di dagale di dagale di dagale di dagale ba mu des maanaam benn aaya te aaya bu ne ba lañ koo bind foog ñu utal ko ñaari seede ñu seet benn aaya rek moo leen dese mun aaya ba nekk ca mujj ak tawba muy laqad jaakum rasulun min anfusikum asisun alayhi ma anittum ba jeex ñu wër ko wër vérifier vérifier fekk rek ko am mooy maanaam abi xusaymata ñu ne moom de moo ko mokkalee nii te moom moo wax ne mu aaya bi moom mujj ci suratul tawba amuñu keneen ku ko seede ñu ne nañ ko bind ñu ah parce que aaya bu ne ba koy war a bind ñaar a koy seede bañ demee ci Aboubacar Aboubacar ne ak ah, kay dugg leen ko ak yow Xusayma mii kenn nit la waaye yonent bi defoon na benn seede mu taxaw ñaari seede ñu ne ko lu ko waral mu ne dafa amoon benn waaye bu jaayoon yonent bi gëléem yonent bi fay ko waaye miim ne ko fayoo ma dara parce que nit ñu yàlla. ab yow ko ak ah, kay maa ko koy jox xaalis bi fekkee naa ko bi ne ko def naa sa seede muy ñaari seede moo tax na keroog la Aboubacar ne ko léegi kon dañu bind alquran ngeen jël aaya boobu ci ci ci benn seede bi ngeen jàppee ko. ci lañ dajale alquran nag ci nii waaye nag dañ koy dajale ci nii tamit jàppal ne alquran amutoon tomb amutoon maska amutoon sidda amutoon bi maanaam ay xisib amutoon tamit ay saar mokkal nañ ko nag nii waaye amutoon mandarga moo mën a dem ba ne saar yu fii la yam xisib bi tamit fii la dooree nisib bi fii la rubox bi fii la lii tomb la lii xaraf la amutoon waaye mokkaleekoon nañ ko noona ci làmmiñu Seydina Muhammad loolu nag boo ko mënee dégg pour nga mën koo dégg léegi rek mi ngi mel ni entrepreneur bi yàlla may xam-xamam ci wàllu bâtiment xam nga tey avant tabax bi mel nii nekkoon meloon na noonu ca xelam maanaam dafa mel noonu ca xelam ba pare mu door ko mën a dessin ci kayit defar la plan bi ba mu paree tamit ba nga ko sampee ci suuf si rek mu ngi loolu lépp kon ma ne meloon na noonu tamit ci dënnu yonent bi mu melal ko noonu maanaam ci dënni saxaaba yi waaye nag nekkutoon lu màndargaw bañ a kër gaa ngi ni nga ñoo mën a dugg waaye nag mandargaam lu loo xam ne nag nekk na lu teew ci xel def ko yomb na kon noonu nag la alxuraan man ci niñ ko mën a déggee mu jege léegi nag yàlla dogal aboubacar génn àdduna omar ibnu xataat génn àdduna ousmane ibnu hasan toog ci xilaafa bi ousmane bi mu toogee ñi war a dem pour war a xare ji mu ebal benn saniya boo xam ne xusayfatu ibnu yamaan nii moo ko jiite woon ñu dem Sham pour war a ubbi maanaam ànd ak waa iraq yi ñu war a ubbi maanaam tabaarakallaahu foofa ba ñu mu fekk fa ay nit ci Iraq ak Saam nañuy jàngee alquran wuute naa la mu bàyyi Madinatu Munawwara ci ak ay baat yu bari bëri ay façon yoo xam dañ cee wuute moom nag bi mu ñibbisee rek la gisee Ousmane ibn Affan ne ah, boo taxawaatul ci alquran li daloon yowoot yi ci seen téere bi ak nasaraan yi danañu daal dama bëgg léegi nga seet alquran formé ak beneen commission boo xam ne dañ koy liggéey liggéey boo xam ne benn façon rek la njàngin wi nekk kenn dootu amati wuute yeneen yi ci des it nga la ci la moom tamit formé beneen commission boo xam ne ñi ma la wax nii yàlla fekkee na fekkee nañ ko mooy euh, Sayd ibnu Saabit fekkee na ko Ubay ibnu Kaab maanaam euh, ma euh, ma ak ak Zubayr yi moom ma wax ñooñu ne mu jël leen ne leen léegi kaay leen ngeen taxaw formellement kii bi maanaam taxawul ma kaamil bi mu dem yónnee ci Xafsatu parce que bi Aboubacar génnee àdduna Xafsatu moo yore kaamil bi kii kon moo ko yore Omar ibnu Xataab bi Omar ibnu Xataab génnee àdduna da koo bàyyee soxna doomam muy Xafsatu di sox di soxnaa Seydina Muhammad léegi nag bi Ousmane toogee ci xilaafa bi bëgg liggéeyaat kaamil bi maanaam mu ne nag mu ne kon demal yo ci Xafsatu ne ko na ma abal na ma abal kaamil bi. même tey rek eh, tabaarakallaa ki nekk tey bu fi nit nekkoon ci place di liggéey nekk maanaam président keneen ku mu war a wuutu foog mu laaj dossier yi fi bàyyi woon ngir mën cee sukkandiku lu ci lu rafet bu mën koo continuer lu ciy lu ñaaw man koo yemale foofu moo dem nag jëli maanaam kaamil ba jël ñii nag ñi mu formé leen pour ñu war koo taxawee ngir maanaam liggéeyam. léegi nag bi ñu koy liggéey mën a leen bu ngeen uutee ci baat nuñ koy war a bindee wala nuñ koy war a jàngee delloo leen ko ci luxatu Qurayshi ndax alquran ci luxatu Qurayshi ci la wàcc parce que arab dafa bëri juróom-ñaari façon luxa yoo xam ne dañoo wuute comme ni nga déggee rek danga nga dégg ñu ne kii séeréer la waaye dana ci bari ci séeréer yoo xam ne sax déggante wu noonu lay amee tamit ci pël yi du ñàkk tamit noonu ci tukkuloo yi arab tamit benn kii la benn langue la waaye dafa bëri ay banqaas banqaas yi ci gën a siiw juróom-ñaari banqaas la léegi nag Euh, mu ne leen bu ngeen wutee ci baax rek na ko na ko bind ci luxatu Quraysh moo tax bañ demee ñoom dem nañ ci bind ba yegg ci baatab taabuut xam nga mu ngi ci alquran ñi wutee ci nuñ koy war a bindee ku mel ni bi maanaa Abdullahi ibnu Saad Abdullahi ak Saadu ne dañ ko bindee baatab taabuut maanaam ma bu suuta kii nag nga xam ne mooy Xusayfatu ibnu Yamaan yi nañ ko bindee baatab taabuutu maanaam mu nekk taawu maanaam marbuta werante am ca ñoom ñooñu ba dem ca Ousmane Ibn Affan mu ne leen bigg leen ko taabuur ci taabu boo xam ne ma ko suutala parce que loolu mooy loxo du Quraysh kon luñ ci mos a wutee rek moom moo leen delloo léegi nag ci la bi kaamil bi pare ci la ko Ousmane nag móol ay móol maanaam bind ko loolu léegi rek da ko da ko photocopie waat def ko ay nusxa léegi nag yónnee ko ci dëkk yu mag yoo Iraq yónnee bii Sham yónnee bii maanaam ñi bi bee waa Madinatu Munawwara yore ko fépp fépp fu l'islam capital l'islam yi nekk rek am saarum maanaam lislaam yi rek benn bu ne mu yónnee fa kaamil kaamil yi ko jiitu woon yëpp mu mu mu mu dajale ko lakk ko ci lañ jëlee ba léegi ne alxuraan boo ko gisee muy sànku di yàqu foo xamee da ngay ragal mu dugg ci sobe mën nga koo lakk bu la neexee ci biir nga gas fu laab nga suul ko mais lakk moo gën parce que mën ngaa lakk mën nga koo suul ñu ñëw tabax fa benn bâtiment wala ñu gas fa foos doo ci xam daal waaye loo xas lakk rek loola moom maanaam du mucc na wala Ousmane mooy ki njëkk a dajale alxuraan lakk ko ci ci kii yu njëkk mu dajale nii li muy rëy rëy taxul mu am tomb amul maas amul sidda amul tamit ay xisib ak i nisif yooyu yëpp amu ci woon. gannaaw bi nga xamee ne léegi ñoom ñëpp génn nañu àdduna Ousmane génn na àdduna Ali ibn Abi Talib génn na àdduna ba mu nag maanaam ñeneen Muawiya ñëw génn àdduna ba maanaam Marwaan ñëw Abdul Malik ibnu Marwaan ci xilaafaam ci la ñu dooraat ci la ci la door a ebal ku ñuy tuddee Abu Aswad addu Ali ñenn ñeneen Yaxya ibnu Yaamur dégg nga de ñeen dégg nga de ñu ne ñenn ñenn Yuusuf ñoom ñett ñi ci lañu ñu werante ne ñoom kenn ci ñoom moo moo moo tomb alquran moo indi masque yi moo defar saar yi moo defar xisib yi mi ngi fi woon nag comme ni ma la ko waxee moom dafa ñëw rek pour mandargaal ko kon kooku mooy ki ko defar dañuy ñett ñi kenn la ci waaye mun naa am sax ñoom ñett ñëpp la kii mën naa tàmbali euh, kii ñëw jàppale ko ci ba liggéey bi sotti ndax liggéey bi bu réyee nii mën ngaa jàppale kenn nit pour mu def ko dana ci nekk lu yàgg léegi nag ci lañ mujj nag indi alquran bi nag tasaare ko nag mu mujj mel nii bay si ci tey nit ñi ñu mën koo jëriñoo kon alquran foog ñu mën a xam histoire am ndax ñu man koo jox gëdd wane ne lii lépp ma jaar li ma ci jublu mooy seetal li yonantu bi daj ci alquran waaye gannaawam tamit seetal ma saxaabaam yu màgg yi li ko dolee ci Aboubacar ba ci Ousmane ba ci ñoom Aliyu ñëpp ba ci Abdul Malik ibnu Marwan ñoom li ñu daj ci alquran maanaam ngir rek liggéey boo xam ne ñoom fekkul leen fi waaye ngir bëgg ñun ñii nga xam ne ñun la ñu bàyyi gannaaw maanaam ñooy nekk seen gannaaw ñi war koo mën a jëriñoo kon ñoom tamit dëgg-dëgg mën nañ leen wax ne gàcce ngaalaama yàlla ñu leen yàlla fay ñu nekk ñoo xam ne seen liggéey wax dëgg yàlla rafet na noonu tamit la fonk alquran wàcc di ñëw di ñëw di wàcc si di wàcc si ba yegg si suñu mag ñu nekkoon ñoo xam ne alquran la leen gën a lu dul moom wàcceel tey ci Sidi Ahmad Tijani nga xam ne tabaarakallaa bañ ko laajee alquran dafa wax ne benn aaya ci alquran rek ab yoolam kenn mënu nekk di ko misaal moo ëpp lu dul moom yool moo xam salaatu ala nabi la moo xam ay daawa ay ay ay ay ay daawaat la ay ñaan yoo xam ne mba suura la dañ koo solo ci yonantu bi ak yu solo solowul yëpp mu ne alquran du moroom yi dara ci moom mu def ko nag ñeenti xaaj ne nga xam ne day jàng alquran te bu diglee mu def bu teree mu bàyyi bu xuppee mu tiib bu déglee mu bég bu waaraatee bu xisaa mu yéemu jàng alxuraan la gën lu dul moom moo xam te fekk tamit xam na firi wala xamu ko waaye rek xaaj bu mujj bi rek laa jël mu ne koo xam ne nag buy jàng alxuraan bu diggee def bu teree du bàyyi bu xuppee bu béglee du bég moom jàng rek la ci am waaye bu bu bu tegee kaamil ba moo gën a bon ñëpp seet nee na kooku na bàyyi alxuraan dem di julli si yonent bi ndax nu mu gën a jàngee alxuraan alxuraan da koy rëbb ndax yonent waxoon ne rubba qaari'in fekk wal qur'aanu yam'an bëri na koy jàng alxuraan te fekk la ngay waaye salaatu ala nabi nag loo bon bon yaa ko tax a jug du la rëbb mukk boo doon sàcc di fen di njaaroo di tappale di jàng sa def salaatu ala nabi lu tax mukk mu rëbb la kon alquran dafay am noo war a mel door koo mën a jariñoo waaye am na ñoo xam ne boo ko melu alquran da ngay ciy loxo salaatu ala nabi nag noo mel rek moo mën naa ànd ak yow kon jamono jii dama duma wax ñëpp waaye lu ëpp ci nit ñi salaatu ala nabi lañu war di def ndax ñu ëpp ci nit ñi fañ war a te fi nga war a ne boo fa nekkul alquran bu ñëw da dafa fekk si waaye nag am taxem ci salaatu ala nabi bi nga xam ne foo ne moom mu fekk la fa kon boo ko doon misaal da ngay wax ne alquran ak salaatu ala nabi yi noo ko mën a misaale ci ji jamono jàppal ne ci boppam saakoog dugub la salaatu ala nabi di kiloob caay léegi nag dëkk boo demoon rawatina ñu sant siise nga ne leen maanaam kilo saakoog dugub ak kiloob caay lu ca gën ñëpp dañuy wax saakoog dugub moo gën parce que moo gën a bëri ay kilo waaye bu ñu ko waxee ne nee na ko dugub ak kilo cere lu ci gën waa gi nee na saakoob dugub nee na ko buy ko xiif buy ko xiif yaakaar naa jël cere ja moo gën maanaam jël saako ndax bu jëlee cere ja moom amul dara day jël lekk bu yàkkamtee ba yàkkamtiwul mu def ca ndox amul benn problème fekk na pare na kon salaatu ala nabi cere ju pare la nga ñëw rek amul benn condition waaye nag alquran saakoob dugub la bala nga koo mën a lekk muy nekk cere da nga ko da nga wal da nga mooñ yaakaar naa sax da nga suusal mu door a nekk cere kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nga xam ne wa man yaqul anna salaata aksaru ajran min alqur'ani laa yukfar noonu la wàccee ba ci Cheikh Omarul Fuuti yu moom fu mu toll ngiseem bi danaan yore def ci téeréem yàlla bi rek di tukkeeg moom fu ko euh, kenn daay fekk wala guddi balaa def dara rek téye téeréem ba jàng moom alquran rek moo doon wéttalam moom laan demee ci xar yi moom laan defee ci lu ne noonu nga koy wàccee ba ci xaadimu rasul mi daan wax ne alquran mooy suma wéttal ma nekk rek moom laa fa neexal fu mu nekk tamit man man man la fa neexal lu ma waral moom bañ na ko dund na ba génn àdduna amutoon poos nangutoon a fanaan ci lal loo mus a yëkkati mu ne tegal ci kaw tegal ci suuf ba mooy am kon li xew léegi toog tabaarakallaahu yore sa kaat kaat say jeeg wër la menn masala doo ko jàngale léegi rek la ko nit ñi te duñ la jox nga jël waaye mag ñi musu ñoo ñemee xëy te joxe wuñ ay dars jàngale moo doon seen jikko noonu ko koy fekkee ci al maam Alaaji Abdoulaye Niass mi nga xam ne bañ na ko moom ba firi na alquran yoon ak fukk ak ñeent mu tolloog limisaari ba maam xalifa nekk bañ ko laajee mu ne zikrun xakimun minallaahil xakimi ata ilal xakimi fa zid tardiida zikrihi mu ne alquran mooy téere bu tedd bàyyee ko ci bu tedd ñu wàccee ko ci jaam bu tedd yow nag boo bëggee bokk ci ñu gën a tedd ca xeet wa foo toll rek defal alquran muy sa wéttal gis nga mag ñi moo tax seen kër yi du gent ñoom ñëpp génn nañu àdduna waaye seen bàmmeele ñoo joxe ñoo joxe tey dépense yi bañ fi nekkee nag nekk fekk ay buur ñenn ñi tudd ay teeñ maanaam di xëccoo àdduna di xëccoo nit ñi mag ñi sonn lool amuñu sax dépense bu sax waaye nekk ci alxuraan di jàngale rek ñee ñoom yore pouvoir ba ñu bëggoon am nañ ko waaye nag gis nga ba ba yàlla wëlbatee mbir yi rek ñoom ne woon ca kanam nekk ca gannaaw suñ mag ngeen ñun niru woon nga nekkoon ca gannaaw mu di nekk ca kanam ñee ñëpp tey seen kër yi fay na kenn xamatuñ leen mbooleem kër yi ñu fi daan wooye naan ay teeñ lañ boo fa demee mag ñu teeñ rek nga ak ay sët yu teeñ lañ fi bàyyi kon fi nga togal alquran rëy na moo tax mu daan wax ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walil ilahi bihi sakkan noonu nga koy fekkee tamit ci Seydil Hadji Malick nga xam ne moom dundam lépp da ko daan jàngale dana wax ne su doon tànn métier mooy ñu itam jàngale su demoon ba noppi ci jàngale li muy li muy li mu li muy tànn mooy maanaam métier maanaam médecin nekk maanaam kenn ci médecin muy muy métier médecine muy faj nit ñi mu ne ñaari métier yi ñoo yoon ci